sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu ci nuyoo bi gën a sell muy salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. sëriñ bi nee na dongo yi ak taalibe yi ak bokki jullit yi fi teew yépp nee na mi ngi leen di siyaare bu baax a baax. nee naat mi ngi nuy ndokkeel ci bis bu tedd bi nga xamante ne si moom moo nu dajale fii tey. nee na di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi. sunu sëriñ sunu kilifa sëriñ Cheikh Mouhamadou al Muntaqa Mbakke nee na ñu ñaan suñu borom mu mën a àggale ab liggéeyam nee na di ziyaare sunu kilifa di borom bis bi sëriñ Cheikh Ahmadou Mbakke moom sëriñ Saalixu ak njabootuk sëriñ Saalixu gépp di ziyaar bu baax sunu mag sëriñ Cheikh Mbacke di ndawul sëriñ Tuubaa fii ci dëkk bi te mate ko sëkk di seeres taalibe yépp nee na di leen sant yéen ñi nga xamante si yéen dongay sëriñ saaliwu yi nga xam ne yéen a deman xel koom yéen la seen waajuree joxoon sëriñ saaliwu sëriñ Saaliwu ni jox leen ma gone yi ma def ci li ci ñoom la sëñ defan ca mag ña ni leen jàkk ku baax ki yéen lay waxal nee na mi ngi leen di sant di leen siyaar ci seen bis bii nee na mi ngi jël nuyoo bi nag ak siyaar bi lépp di ko teg ci loxol ki nga xamante ne si mooy jëwriñ ji muy Cheikh Ahmad Bamba Ñang nee na mu jotlil ko ko mbokki taalibe yépp ak mbokk yi nga xam ni ñoo lalu ci daayira Serigne Touba bi nga xamante ci moo nekk ci dëkk bi ak mbokki taalibe yi ci réew mi yépp ak mbokki jullit yépp sëriñ bi nee na mi ngi leen di ziar bu baax a baax di leen ñaanal bu baax di am yërmande ci yéen bu baax a baax di ñaanal sëriñ Bamba mi ak ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaaw ñépp ci liggéey bi nee na liggéey bii ngeen di defal Serigne seex Cheikh nee na de yàlla na ko nangu te ngeen daje cee ngërëmam muy alxuraanu saabixuuna na ulaayika al muqarrabuuna te it ngeen di ko gën a man bu baax a baax ci barkeb Serigne Touba na naat ñu bëgg ñu fàttalikoonte tuuti rek ci sunu bopp ci li waral bis bii ak ki ko waral ñu seet luñ ci jànge ak lu nu ci yokkoo nee na alquran day day wax ni misaal mun joxe ci tabaski la ne suñ borom day soxlawul ndawalu xar yan cay rey soxlawul deret ja waaye la ca mën a juddoo rek la soxla muy ragal yàlla loolu la suñ boroom soxla ci yëf ju ne muy taqwa ak jëfe ndigal kon sëriñ bi nee na daje bii ñu daje nee na mbooloo mi bari lool xiiwal yi bari lool nee na li nu ci mën a jëlee mooy ragal yàlla rek muy taqwa ndax maamam ju baax ji doon na wax doon na wax naa dee leen def tawasul taqwa gii sëriñ bi wax waa waajuram bu baaxoo mooy maamam ja daan ko dëkk ci boppi taalibe yi kenn ko xam jamono yi sëñ Saaliw mbaa nga daan ko déglu xam nga ne waxam ji li ci ëpp lépp mooy taqwa ak tawassul nee na ragal yàlla googu nee na mooy dëgëral suñuy pas-pas suñu diggante ak sëriñ Tuubaa nee na suñu diggante ak jëmm jii ñuy defal bis bii sëriñ bi nee na kon nan dàggee kuwaat bu baax a baax te xool li nga xam ne ànd ak sëriñ Tuubaa moom la ñuy jariñ mooy jéem a roy ci moom na ko xadis ba waxee rek laxat kaana lakum fi rasuulullahi iswatun xasana nee na bu nu seetloo ci waxi sëriñ Saalihu nee na day sëriñ Saalihu nee na Sëriñ Tuubaa waxan na ca njaareem ni su ma leen wooyee yéen taalibe yi digal leen tere leen seytaane day ñëw ci seeni xel ni li leen sëriñ biy digal day mënu leen ko lim leen di teret mënu leen koo bàyyi waaye mbaa buñ ko mënoon kon ñun luñ koy toppe nee na Sëriñ Tuubaa loolu day pexem saytaane la nee na jéem maa roy day du mel ni man waaye dina tax a gën say moroom kon nag loolu lu am solo la kon day nañuy roy ci suñ kilifa yu baax yooyu seen jikko yu tedd yanoo aman jóge ca ba jikko yooyu moo waral bis bii buñ jëlee ki waral bis bi taxawaayam moom Cheikh Saalihu Mbàkke ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa taxawaayam ci lislaam taxawaayam ci doomu aadama loolu ñépp teg na ci seen bët ndax ba mu jógee rek ba xàmmee la jël liggéeyal Sëriñ Tuubaa def ko muy itteem def ko muy liggéeyam nee na nag mu won ginnaaw àdduna won ginnaaw alal won ginnaaw ak njabootam won ginnaaw bakkan dëgmal rekk Sëriñ Tuubaa loola nag nee na nag jëm jëf jii muy wax ak wax jii muy wax ñi nga xam ni ñoo maase woon ak jamono Sëriñ Saalihu Mbàkke doy nañ ca seere ñi nga xam ne ñoo ko féete woon ak mag mat nañ ca seere nee na ñun ñi nga xam ne ñoo mujj ñëw di tu tànk yet mat nañ ciy seere lam njëkk jël muy liggéeyal Serigne Touba lam njëkk jël muy liggéeyal Serigne Touba muy tërbiya donga yi te xam ne xale kat moom mooy ëllëgi doomu aadama lam ca def lam ca def li ko ci Serigne Touba defal mosu koo defal kenn ndax koo xam ne tërbiya nga nit koo xam ni tërbiya nga nit ànd ak moom ci la nga koy tërbiya ànd ak moom ca la nga koy tërbiya ci tumuranke ci tumuranke eh, ak naqaru àdduna ndax foofu ca daaray got bañ fay sanc ndax nee na foofu ca daaray got bañ fay sanc eh, am ci mag mag ñam fa ña fa àndoon ak moom di sëriñ mut nee na mag ña nga xam ne ñoo ànd na moom sëriñ saaliwu am ca ku ñuy wax sëriñ mut jeng nee na ku dëkk Cees rek ndeysaan war nga koo xam nee na juróomi nit yi nga xam ne ñoom la sëriñ bi njëkk àndal foofu ca la bokk nee na dañ faa toog euh, toog ay fan toog ay fan ndeysaan dara takkul ci kër gi amuñu lu ñu togg su xew lu jotee rek su xew lu jotee sëriñ bi ni leen mën ngeen a dem lijjanti ji yéen sëriñ bi ni leen mën ngeen a dem lijjanti ji yéen ñoom ñu dem yalwaani suñ mosee dara delsi suñ mosee dara delsi nee na ñu xool sëriñ bi moom moom sëriñ wu ñu toog ay fan gisuñu ko mu jëfandiku benn yoon nee na mu toog ci wetam sëriñ bi naafila sëriñ bi naafila nee na mu sëriñ bi naafile mu toog ci wetam mu dégg biir bi mel ni luy jooy nga xam ne léeg-léeg ku xiif biiram day dem ba nga ko danga koy dégg sax ni muy jooyee ci biir nee na bi mu noppee mu ñëw ni ko sëriñ bi day daa am lu ma jaaxal ndax yow day doomi sëriñ Tuubaa nga su la neexan tey jii sa kër gi mel ni kër yépp ci neexaay te ma gis lii nga nekke léegi nag dama bëgg nga may nu ndigal ñu dem ci xur wi yatt ci barax bi fi ne yóbbu ko cees sunu ko jaayee indi ko ñu mën la cee wutal loo xiiwloo nee na sëriñ bi ni leen ni ko dama laa bëgg a leeral dara lii ñu nekke umpul yàlla umpul yonant bi umpul sëriñ Tuubaa te bu ko neexan lépp jeex tey waaye nag àdduna dafa bindoo noon xam ni soo jógee jëm ci yàlla nee na bekkoor ak naqar day jóg song la soo wëlbatikoo xéewal ñëw waaye xéewal googu du sax soo jàmmarloog ñoom ba dàq bekkoor xéewal ñëw te dootu fi jóg abadan loolu nag foofu rek ndeysaan fi la Cheikh Saalihu Mbàkke tegan tànkam ba nee na yar ci ñooñu mu àndalan ci ak tumuranke ba ñooñu génn ci ay loxoom dem ba ami doom jébbalaat ko ko jébbalaat ko sëriñ bi mu waat leen ànd ak ñoom ànd ak ñoom ci dëddu àdduna ci dëddu àdduna ba ñooñee mata samp kër ba ñooñee mata sampi kër mu yeewiwaat leen leen ba tërbiye seeni sët ba tërbiye seeni sët kon loolu yaakaar naa kenn mësu koo gis kon loolu de yaakaar naa ne kenn mësu koo gis nee na tërbiye na nit tërbiye baayam tërbiye doomam kon loolu liggéeyal sëriñ Tuubaa dëgg foofu la mën a yem liggéeyal sëriñ Tuubaa dëgg foofu la mën a yem liggéeyal magam yi ak rakam yi nga xamante ne ci yépp ñoo bokk ak ñoom Serigne Touba. lu mu mës liggéey ci ay daaraam. lu mu mës a liggéey ci ay daaraam. ki fi nekkal Serigne Touba la koy jox. ki fi nekkal Serigne Touba la am na mag mu ma nettali. nee na day am na mag mu ko nettali ni ko. sëñ Massamba Gueye di doomi Cheikh Marouba. sëñ Massamba Gueye di doomi seex Marouba Gueye. nee na euh, sëriñ Saliou da ko daan yónni ci Serigne Fall. nee na da ko daan yóbbu ni ci Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacké. waaye nee na bu musaa ñëw nee na bu duggee rek mun ko ana sa waaja ana sa waaji ana sa waaji ne ko day mbaa xam nga ne làmbi Sëriñ Tuubaa ji moo koy tëj loolu nag dara mayu ko ko woon lu dul jëfam ak pasteefam ndax fa mu war na teg Sëriñ Tuubaa fa la teg magam yooyee sëñ ma Masamba moomu nee na nee na ko bi ñuy tuut tànk ànd nañu Cees ak sëriñ bi nee na ñu dem ci sëñ Basiiru bi ñu duggee ci sëñ Basiiru nee na booba day nit ñi xamaguñu worma ji nga xam ni moom lañ war a jox doomi sëriñ Tuubaa nee na ñu jiitu ci sëriñ Basiiru ñoom bi ñu ñëwee nuyu Serigne Basirou waaye bi Serigne saaliwu agsee summi ay dàllam sukk nuyu Serigne Basirou nuyoo bu tegganu nuyu murit bi nu génnee nee na mu ne ko sëñ bi de dafa am lu ma la bëgg a laaj ne ko dama gis teggin yi nga jox Serigne Basirou ak wor ma ji ko jox te du mel ni sax ñun àggunu fa. sunu war ma àggul ci moom nee na ñu xam ne day yaa ngi moom yéen a bokk Serigne Touba tolloo ci Serigne Touba ba noppi nag yow nga wi ñu ko doxale nii nee na Serigne Saliou ni ko Masamba dama bëgg nga xam ni man sama tolluwaay ci Serigne Touba képp ku ma gis ñu wax ni mos naa yendu ci ëttub Serigne Touba. sëriñ Tuubaa mos koo digal wula mu mos koo tere kookee day bu ma ko gisee su ma nangulee ma toog ci ab ëttam dootuma fa jóg mukk mu di ma digal di ma tere kon moom pas-pasam moom sëriñ Saalihu ci sëriñ Tuubaa foofu la toll woon ñépp xam nañu ko nee na mënee su cee wax dara ci àgg ci moom sëriñ Saliou moom Serigne Saliou musta wax dara ci sëriñ Touba lu àgg musu cee wax dara maanaam wax jonqay wax ja day àgg ndax pas-pasam bu rëy nee na kon nag ñun ñu ko yaakaar di ko xeeñtu nan delluwaat ci loolu bu baax ndax jamono soxla na ko yëngu-yëngu yi bari na xat-xat yi bari na waaye nee na nag nañuy roy ci ñoom suñ royee ci moom ak taalibe roy ci ñoom dëddu àdduna yor ci moom yërmandeem ja roy ci ñoom bëggante gi duñ am benn jafe-jafe te lu nu yóotu dana na ci jot kon nee na góor góor lu baax nee na sëriñ Saaliw lu ko sëriñ Tubaa jaralam ñun ñëpp teg nañ ci sunu bët. nee na noonu ma ko waxee rek lépp loo xay mos na koo liggéeyal sëriñ bi rek. daawu ci jëfandikoo dara. lépp ci sëriñ Tuubaa la koy delloo. nee na mbooleem alali daayira yi nga xëy dañ ko daan yëkkati di ko teg ki loxoom moom sëriñ Saalihu. wula uh, seex bu ñëw siyaare ko alal. nee na ak li nga xam ne moom moom la daan liggéey ci dooley boppam di ko béy ci ay daaraam nee na yooyu yëpp daawu ko sañ a jëfandikoo da ko daan def lépp ci liggéey bi sëñ bi nee na kon nag nan xam liggéeyal sëriñ li muy jariñ nee na loolu mu def lépp li ko ci sëriñ Tuubaa ak may gi ko ci suñ borom defal nee na ñun ñëpp teg nañ ci bët tey mi ngi ci xoli ñëpp ci xoli taalibe yëpp la ko ko may nag daal liggéeyal boroomam liggéeyal Serigne Touba ba am ngërëmam liggéeyal doomi Serigne Touba yëpp ba am seen ngërëm liggéeyal seexi Serigne Touba yëpp ba am seen ngërëm liggéeyal ñëpp ba làq ngërëmal ñëpp. looloo tax day suñu boroom def ko ci xol yi ñëpp nee na kon nag ku bëgg lu baax bëgg am dara ci Sëriñ tuwaa na nga roy loolu bu baax a baax ku baax ki nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm di jéggaayu ci guddaayu waxtu wi ndax xataayu waxtu wi waaye sant na bu baax a baax gërëm nañ leen bu baax a baax di ñaan suñu boroom day saxal fi jàmm ak xiwal yaatoo yaatu ci barke borom Touba sëriñ bi nee na na xel yi dal na xel yi dal te nee na nu sax ci li nga xamante ne moo nuy indil ndimbal indil nu jàmm muy liggéeyal sëriñ Touba nee na noonu ko sëriñ bi doon waxe ni liggéeyal sëriñ Touba addiye yi ni yët sëriñ Touba. dana fekk fu dara néewul mu def fa dara fekk lu tuuti mu baril ko fekk lu bari mu barkeel ko kon nan xam ni loolu mooy compte bi ëpp solo ku bëgg say mbir di dox say mbir di jàkk liggéeyub Sëriñ Tuubaa bi bu la ci kenn man te ku ci nekk ci ñun ñun ñu jóge ci réew ma dem na ci sëriñ bi ñaan fa ñëw ak jàmm am fi xéewal ba liggéeyal ci sëñ Tuubaa ak ku fi ñëw tey bul fàtte loolu nee na nan ko fonk bu baax fonk daayira yi fonk addi yi ni kiy dugal te xam ni lépp day ci sëriñ Tuubaa rek la jëm lépp lu sëriñ bi taxawal nee na ci addi yii rek la koy liggéey kon nan ko fonk bu baax a baax suñ ko defee rek suñ lépp baax ku baax ki nee na mi ngi delloo sant di gërëm di ñaan nu yàgg koo taxawal at yu bari lool ci barkeb Serigne Touba nee di sant sëriñ Cheikh Mbacke mi di ñaan suñ borom dëgëral ko ànd bii nga xam ni moom la ànd ak ñun di suñu jëwriñ ci réew mi jiitu nu ci sëriñ Touba mu yàgg lool. ci barkeb Serigne Touba Mbàkke mi ni sant kat nee na dinu gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullah simaamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin xaada bil mani